internet salaamaaleykum maa leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax eh, fii ci Thiès Info seen programme tey nag dañ leen indil lu spécial lu neex lu am solo eh, nan la ñuy waxee sama yaay tibbal na ma xooñ ci français sama yaay tibbal na ma xooñ ci français tey nag ngeen gis ay Molière ay Cheikh Anta Diop sama caméraman junior topp ma léegi sama yaay tibbal na ma xooñ nan lañ koy waxee ci français sama yaay maa donee xooñ sama yaay maa donee xooñ <laughs> sama yaay ma donné xooj. waaye yow loolu foo ko teg na la. waaye wóor na bu baax sax. bu baax bien. toj nga fi. Euh, sama yaay euh, tibbal na ma xooj nan lañ koy waxee ci français. ma maman maa tibbal la. yaa <laughs> wóor na la wóor na waxaat ko sama yaay tibbal na ma xooñ ci français waxaat. maman prépare du xooñ. maman prépare du xooñ waaw. noo tudd. maa ngi tudd Serigne Sall Xuman. fooy jàngee. ah Notre Dame nga ne. Ah. léegi sama yaay tibbal na ma xooñ ñu ngi koy waxee ci <laughs> ma mère. waxal rek. ma mère. ma mère donné riz dormir. ma mère m'a donné. riz dormir. koy waxee nga ni. Ris bien bien dormi. Ris bien bien dormi. la yow am nga fit de. waaw am nga fit de yow li nga wax foo ko teg. dara. sa création la. Ah, sama création la. ëpp na wàccee nga fi de ba xam nga ni wàccee nga fi. ba zéro kay. ba zéro. yaa wax lool. ba zéro degré. non xale bi yow neex nga de. léegi nan la ñuy waxee sama yaay tibbal na ma xooñ ci français. Eh, sama yaay tibbal na ma xooñ. waaw. <laughs> yomb na de. <laughs> on passe suivant. waa góor réfléchir léegi nan la ñuy waxee sama yaay ci français. sama yaay. ma mère. tibbal na ma. tibbal. tibbal. na ma. ma donné. léegi xooñ ni ñu koy waxee ci français. xooñ loolu su ma koy wax damay mel ni kuy imité Bouba Demba quoi kon bàyyi ma passé rek. waaw waxal rek. non. tey ngaa woo waxal yow dis-moi c'est la réponse. ça va bien. noo def. maa ngi fii baa yaa ngi si jàmm maa ngi si jàmm léegi sama yaay tibbal na ma xooñ nan lañ koy waxee ci français. maama maama servi euh, cratin <laughs> léegi reformulé ko. Hmm, maama maama servi di cratin. toj nga fi wóor na la. ah je pense que loolu la de. wóor na la. wóor ma de ah dama à peu près kon neex na. sama bi. ça va. noo tudd. man alin Faye laa tudd. fooy jàngee. c'est Nour Tall. léegi sama yaay tibbal na ma xooj na lañ koy waxee ci français. <laughs> waxal rek ko rek. te waxal rek waa léegi nan la ñuy waxee sama yaay ci français. ma tibbal na ma. waaw euh. <laughs> ah, waxal rek tibbal na ma nan la ñuy waxee tibbal na ma. tibbal na ma. Euh, maa lese. maa lese léegi xooj ni ñu koy waxee ci français. gratin. waaw léegi yow bu reformuler sa phrase. ma mère m'a laissé dire gratin. ëpp na yaa wax lool. waaw. <laughs> Eh, yow aay nga de am nga fit de. laayal na la wóor na la wóor na la. wóor na la. sama yaay tibal na ma xooñ nan lañ koy waxee ci français. sama tibal na ma xooñ. waaw waaw. <laughs> non loolu moom su ce sera du français créé moom ndax. yow waxal rek. sama yaay tibal na ma xooñ. léegi na la ñuy waxee sama yaay ci français. ma mère. tibal na ma. tibal na ma maa servi. Ah, xooñ. <laughs> fond du marmet <laughs> léegi léegi yow reformuler sa phrase. ma mère m'a servi <laughs> di fond du marmette. waaw kay yow li nga wax wóor na la. ah non nee la moom ce sera di français créé ndaxte xooñ moom wax dëgg yàlla mosuma dégg nañ koy waxee français. ça va boy. ça noo tudd. man maay tudd Babacar Lo. xam nga nan la ñuy waxee sama yaay may ma xooñ ci français sama yaay tibbal na ma xooñ. ma mère m'a offrir taatu-cin. ma mère m'a offrir taatu-cin. yow loolu ko créé. ah. ko créé maa ko créé. yow kay yaa créé yow wóorul li la li nga wax wóor na la. waay ma wóor ma. bu baax a baax. su ma wóor woon nu ma ko wax. ah. ma mère waxaat ko. ma mère ma offrir un taatu cin. ay waay. xam nga ne la waxee sama yaay tibbal na ma xooñ ci français. ma mère m'a laissé du gratin. ëpp na yaax lool. ah si li ma foog. ci li nga foog sa sa xalaat. waaw comme que jàng du jeex ñun suñu jàng foofu la yemagoon. Ah, foofu la tolloogum yow loolu nga gis baa xam nga ne toj nga fi. <laughs> rajax. tabaa booy naka mu. nice. noo tudd. man Ibrahima. foo dëkk. man maa ngi dëkk Cité Sodiba xuur naar noonu rek. fooy jànge sud école Sem Tidiane. ah sud léegi xam nga na lañuy wax sama yaay tibbal na ma xooñ ci français. sama yaay ma xooñ <laughs> xamoo ko. xamoo ko. non ah, léegi ñu sama yaay ci tibbal na ma. riz bee bi. nga ni <laughs> nga ni tibbal na ma. <laughs> ceebu xam. xooñ xooñ nag xooñ. xooñ ceebu xam rek. léegi yow reformuler sa phrase. ma mère a préparé. riz. un riz. un riz. Euh, tam nga ni daal ma mère a préparé un riz rek loolu kese. ça va Miss. ça va bien. noo tudd. Madina. fooy jàngee. école Notre-Dame du Cap-Vert. Ah, euh, léegi euh, nan la ñuy waxee sama yaay tibbal na ma ñànk euh, xooñ en français. ma mère m'a servi du gratin. ma mère m'a servi du gratin. ku wax loolu. ah dama taxaw ma réfléchir réfléchir ma xalaat dañ ma ko waxoon ma wax ko. ah dañ la ko waxoon nga xalaat. ah wóor na la kon. Mhm. wóor na la bu baax a baax. waaw wóor c'est sûr. sûr. salaamaaleykum sëñ bi. maaleykum salaam. noo tudd. man Amadou Mbodj Amadou Mbodj laa tudd. fooy jànge. man ISEC Pikine formation laay def. waa léegi nan la ñuy waxee sama yaay tibbal na ma xooñ ci français. Hmm. waaw loolu mën naa wax ma mère m'a préparé du riz ah, ma mère m'a préparé du riz loolu mooy sama yaay tibbal na ma xooñ ndax wóor na la. je crois je crois c'est loolu la. c'est sûr c'est sûr. am nga fit de. non ah oui c'est ah man ngay laaj. ah ma wax. ma mère m'a donné du gratin. ah bon gratin lañ koy wax xaar ma ko. ah man de loolu laa foog danga maa laaj ma tontu la. man dama lay yóbbu vaar de après. <laughs> waa léegi. sama yaay tubal na ma xooñ. nan lañ koy waxee ji français. sama yaay tëbal na ma xooj yaa ngi laaj lu ko waree. ba xalaatal rek te réfléchir rek nga wax. Euh, sama yaay tëbal na ma euh, ma ma ma mère <laughs> wax la lu gën a yomb nan la ñuy waxee sama ci français. ma na ma. Hmm, ma mère hmm. na ma tibal na ma. ah ma euh, ma ma. léegi nu ñu waxee xooñ ci français. Euh, gradé. waa léegi tibbal na ma léegi sama yaay tibbal na ma xooñ léegi yow jéemal formule phrase bi rek. xam naa ko quoi mais. <laughs> kon daal xamoo ko nii. non xam naa ko kay. léegi kon euh, <laughs> léegi sama yaay tibbal na ma xooñ na lañ koy waxee ci français. Eh, question moom ñu ngi koy lab quoi bu ma tooñ mooy ngir. waaw ah, waxal rek waxal rek. non xaw ma franchement. waxal rek léegi ni ñuy waxee sama yaay tibbal na ma xooñ ci français. ma mère m'a servi du gratin. ma mère m'a servi du gratin. c'est ça. ku la loolu. alors maa ko xamal sama papa. c'est sûr. sûr que euh, sama yaay tibbal na ma xooñ nan lañ koy waxee ci français. sama yaay tibbal na ma xooñ. Euh, Ma mère a pris une yankatan qui est fumée en ay waay waxaat ko sama yaay <laughs> waxaat ko waxaat ko. Ma pris <laughs> un yankatan en fumée. <laughs> yii ba loolu wóor na la. ah noonu de laa ko jàppee. yow daal noon nga ko jàppee. ñun. salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam. noo tudd. Yacine Diop. baax na léegi eh, sama yaay tibal na ma xooñ ci français nuñ koy waxee. ma mère. m'a donné du gratin. ma mère m'a donné du gratin. loolu wër na. <laughs> ma mère m'a m'a donné du gratin. c'est sûr. c'est sûr ah waa baax na. sama yaay tibbal na ma xooñ nan lañ koy waxee ci français. sama yaay tibbal na ma xooñ. <coughs> maman m'a servi du gratin. salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam. noo tudd. Ndeye Marie Diouf. léegi sama yaay tibbal na ma xooñ nan lañ koy waxee ci français xam nga ko. bon ma mère ma. <laughs> Euh, euh. <laughs> waxal rek xalaatal rek sama yaay tibbal na ma xooñ. Hmm. léegi sama yaay nuñ koy waxee ci français. ci français ma mère. tibbal na ma. bon tibb on peut dire. Euh, prendre. ah quelque sorte. léegi xooñ ñu ngi koy waxee. gratter je pense. ma mère ma euh, euh, ma mère bon <laughs> m'a donné du gratin. voilà est que leer na la. ben oui. ah sûr sûr. sûr oui. gi nan la ñuy waxee sama yaay tibbal na ma xooñ. sama yaay tibbal na ma xooñ non man moom dégguma olof bu baax loolu moo tax xaw ma ko. waa léegi nu ñuy waxee sama yaay ci français. sama yaay maman. maman tibbal na ma xooñ. <laughs> je sais pas. <laughs> xam nga ni waxee tibbal na ma. nan la ñuy euh, sama yaay tibbal na ma xooñ nuñ koy waxee ci français. ay booy yaa ngi bëgg a dugal de sama yaay tibbal na ma xooñ. réfléchir rek xalaatal rek. Ah! man d'ailleurs xooñ xaw ma nu ñu koy waxee tubaab xooñ. xam nga ni ñuy waxee xooñ ci français léegi nu ñuy waxee sama yaay ci français. sama yaay waaw waaw kooku moom mën na wax ma mère. léegi tibbal na ma. ma mère. non loolu moom du ma ko ko trouvé. essayé rek. non loolu ah, bàyyi. ñuy waxee tibbal na ma. Ah, waaye ji am jàppati rek ma ma xaw ma lan daal. waxal rek. non non non s'il xam nga rek ma mère tibbal na ma xooñ. léegi nan la ñuy waxee sama yaay tibbal na ma xooñ ci français. <laughs> sama yaay tibbal na ma xooñ ci français. ma m'a servi du gratin. ëpp <laughs> yaa wax lii. maa wax lii. <laughs> na wóor na. ah man sama ah loolu naa sama bopp. léegi waxaat ko. ma mère m'a servi du gratin. ni ñuy waxee sama yaay tibbal na ma xooñ ci français. sama yaay tibbal na ma xooñ ci français non je sais la ñuy waxee sama yaay tibbal na ma xooñ ci français. français ah non je ne sais pas. léegi <laughs> comment on sama yaay en français. maman. tibbal na ma xooñ. <laughs> je ne sais pas. ah tu ne sais pas. <laughs> non non non. réfléchis un peu waay. tibbal ma xooñ non non loolu moo xaw ma ko quoi vraiment. ñoo ko gisandoo. gis ngeen gaay xam naa ni man jommi naa waaye kenn du yéen di leen jox dig daje beneen yoon ci ay yeneen thèmes yu am solo.